raflé woon mooy di dirigeant vertueux loolu kese la raflé woon te jàpp naa ne fi toll nii am na ko. parlant toujours de pouvoir euh, ci programme également daf ci bokk euh, li nga xamante ni moo di ab poste de vice président ndax ñoom jàpp nañu ni premier ministre dafa nekk nga xamante ni président bi dafay am sañ-sañ lool ci moom. te lu ni mel dañ ko war a wàññi euh, teg fii li nga xamante ni moo di ab vice président bi nga xamante ni daanaka mu président bi ñooy xaw a tolloo pouvoir wala bokk seen pouvoir pour président bi dootu amati sañteefu di def lu ko neex ci ki nga xamante ni moom moo di premier ministre bi lu nu mel ma suivre à la télé ku mel ni El Malick Ndiaye ñu invité ko à la 2STV laaj ko lu nu mel euh, pour mu possible certainement il faut que ñu dem ci ab référendum euh, mais beneen affaire bi ci nekk moo di Pa Moussa ndax lu ni mel dafay bokk ci xaalal yoon kii de Ousmane Sonko ci sa gis-gis. non loolu cest di koy wax danoo comprendre euh, le projet de Pastef dans sur cet aspect là loolu mënul ci mandat bi. parce que moom mu ngi lay wax ci système boo xamante ne le président et le vice-président ñoom la ñuy falandoo en fet euh, loolu la ñu doon reproché au président Wade moo tax may faral di wax ne à part les 25 pour cent le 23 juin 2011 c' était la plus bokk na ci euh, escroquerie politique yu gën a mag parce que li président doon wax loolu lu am solo la li président doon dugal euh, président Wade doon dugal ticket président vice président lu am solo la d' ailleurs moom moo am états Penda est-ce que xam nga ne tey jii nii en cas d'empêchement du président ki koy remplacer amul benn légitimité pour être président parce que le président de l'Assemblée moo koy remplacer kooku faluñu ko pour mu doon président de la République donc aucune légitimité euh, le projet PASTEF te dit que ni euh, en même temps président ak ki ko mën a remplacer en cas d'empêchement ñoom ñaar ñëpp dañ leen di fal suivant la même légitimité c'est-à-dire au suffrage universel direct loolu la donc kon président Diomaye loolu noonu mënu appliquer wu ci mandat bi ci beneen mandat la mën a doon donc kon ñi xalaat naan c'est taillé sur mesure pour euh, Ousmane Sonko xamuñu comprendre euh, gis nga Ousmane Sonko jamono ji euh, ña doon wax ak di kii ñun dama bëgg ñu teg seen i kaakana. a gouverner ndoo mu jàpp ne lu ni mel nekkul ay question am solo. li am solo mooy ñoom ñëpp tey naka lañ booloo ba liggéeyal li nga xamante ni moom moo di. askan bi ci entretien bi ma accordé woon mais lu ni mel su ñaari kuy nu ñuy bokkee mbal déedéet ñaari kuy amu fi. ah Ousmane Sonko du kuy ak ak Diomaye. Ousmane Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko. Anta Babacar nee na déedéet Diomaye mooy Diomaye Sonko mooy Sonko. ñaata pour cent la am Sénégalais yi nee nañ ko déedéet moom it na dem waxi ji ak poussin yi te buñ yàq ginaar Anta Babacar bul yokk ginaar bul euh, kii sénégalais yi ñoo wax. xale yi su mu ne nii korité bi ginaar bul na bañ a am Anta mun na mer yokk ginaar yi. xamul ne xamul ne njagañaaw bëri na ay <laughs> maa ngi nuyu Mbaye Diouf <laughs> baayu ba ba baayu Basirou Diomaye Diakhar Diouf eh, Mbaye Diouf bu Ndengeleer maa ngi koy nduyu daa tuddee Diomaye doom bu yàgg nag. Ah waaw moom eh, ñoom waa Ndengeleer ak eh, waa côté boobu noonu. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax mais lu tax demu fa ci campagne. Ndengeleer ñoom ñoo amoon coow li ak Papa Anta. waaw lu tax Anta demu fa campagne. lu tax dem fa jaar na fépp di ba mu des Ndingler bon bref Anta. Euh, na xaar bu dee ci opposition bi lay jëm tax yaa ngi génn ci nga ne loo bëggoon foofu. non euh, moom nee na Diomaye du Sonko ñun ñu ne ko Sonko mooy Diomaye ñaari kuy bokk ñu mbarka il y a pas eu de dualité Sonko joomaay benn nit kii la léegi euh, foog laaj naa ko ba sonn de ci Facebook bi fu nekk interpellé naa ko te mu jaar fa jaar Ndingler campagne mais jaaru fa mais bon bref. ce que ce que ce que je voulais dire par la mooy euh, tey jii nii amul dualité Sonko Diomaye amul euh, gis nga bon am na ñoo xam ne peut-être de bonne foi mën nañuy xalaat ne wu siège président dafa doy waar nangam nangam euh, peut-être ils peuvent avoir des exemples Mamadou Dia Senghor Euh, Thomas Sankara Blaise Compaoré Ali Bouba Diène Ben Bella euh, yu bare bari ñoo xamante ne maanaam seen amitié politique daf ko yàq mais man loolu gëmuma ko ci Sonko ak Diomaye gëmuma ko benn yoon gis nga Sonko ak Diomaye bu ñu àndee. Mm. seen caravane bu taxali ko ci ngay gis Diomaye commencé firee ko di fecc ak yu ni mel parce que en dafa mel ni sax kuuru euh, grand bi. kuuru Sonko. waaw te Ousmane Sonko fi mu toll nii lan la ko sénégalais yi deseel comme jukkal ne ko Ousmane Sonko gàccee gaalaama. doo kenn te euh, du ñu yow politiciens yi ñu xamoon. ak bii bokkut Ousmane Sonko fal nga maire fal nga député tey fal nga président de la république te pour la première fois de l'histoire pré euh, homme politique gagné ñaari élection te bokkul ci benn muy Ousmane Sonko tey jii ña doon wax naan mairie baak maa ko gagné di ngandal ko barki dem boo njaay leer na leen ne gagné wuñu woon dara Khoureychi Thiam dafa defal affaire Barthélémy Dias fële ca mbir moo Sacré Cœur dootul nettaleeti boobu defet te xam na ne loolu Ousmane Sonko la boo demee Grand Yoff maître Ngagne Demba Touré da leen defal affaire les 19 communes de Dakar fépp la Ousmane ñaawteef mais également tamit dégg nañ fi ni Diomaye day day day day jël day jël day jël réew mi après euh, quelque temps après ñu organiser élection Ousmane Sonko ñëw suppléer ko lu ni mel moom. tamit Diomaye est élu pour cinq ans. même loolu su mun a nekk. Diomaye est élu pour cinq ans. nu muy demee lu dul. Euh, na ko yàlla may wér ak gudd fan empêchement définitif euh, décès wala démission président Diomaye reste président du Sénégal pour les cinq prochaines années je dis gis nga euh, sama sama sama vote bi dafa xaw a damaa dama doon voté ba euh, mu ne ma yow da ngay euh, voté wala da ngay loqati da ngay da ngay loqati ay bëtu jàmbur mais parce que à moment donné vote bi yéene gis nga gis nga gis nga waa Touba li defee ndiiraan bureau de vote yi def plus de quatre-vingt pour cent Diomaye c'est-à-dire yi dafa am Touba sax loolu moo ma jaaxal parce que dafa gagné Touba. waaw tagg moom ànd na ak Amadou Ba joomaay gañewul mais dafa gagné Touba moom daf koo taawi ba mu sës loolu loolu noonu li muy firndeel ak yeneen dëkk ci réew mi Ziguinchor Kaolack feneen ak feneen parce que sénégalais yi ñoom ñoo jóg pour fajal Ousmane Sonko lépp lu ñu ko doon teg ci ñaawteef lépp lu ñu wax ci bon lépp lu ñu doon def ci yàq der ci wax ko lu baan sénégalais yi dañoo jóg déterminé comme un seul homme pour feral rongo képp koo xamante ne Ousmane Sonko na ko woykat bi waxee tooñ nañu la tooñ say ñooñ tooñ say soxna tooñ say waa kër waaye keroog 24 février ca ngoon sénégalais yi feral nañ rongo képp ku jàppoon Ousmane Sonko di ko teg lii mu ko teg seul mais bu ñu taxawee Touba bu ma taxaw fenn parce que la yëf yi mu mën a demee mu ngi fa te il avait assuré mais xanaa mais fàtte ne Amadou Ba Dakar la dëkk xanaa dëkk bi mu dëkk dakaar fii bureau de vote dañ ko cee gagné danga nga fàtte ne Diouf Sarr Yoff la dëkk xanaa wala da ngaa fàtte ne Sidiki Kaba Tambacounda la dëkk Doudou Kaaw nga Ziguinchor ma ne Thiès Idrissa Seck 1 pour cent la. waaw ah, Tamba moom Mamadou Kassé moo ko moom. Tambacounda nag Zala Wagee ko gagné. loolu la yàlla def résultat yi sont et ce sont des c'est-à-dire gis nga euh, maa ngi ko doon wax refonte de la classe politique bi ma doon wax loolu euh, fallait que mu leer ci 24 mars bii nii euh, réforme boobu noonu moom moo lay permettre Sidiki Kaba tout puissant premier ministre Zarawaga gagné ko ca Tambacounda moom moo waral lépp la nga doon dégg ci Barthélemy Dias ak yi rëg-rëgam Khoureychi Thiam defal ko Dakar affaire fii ci Ndakaaru loolu moom mooy dëgg bi aji ndaw gagné Kaolack moom ak ñoom Babacar Sow ak ñoom Azoura Fall tur yi ma lay wax daanoo leen dégg ci politique te ñoom ñoo def cette révolution ana xale yi ñu doon wax amuñu carte waa euh, caravane ñu naan xale yi amuñu carte xale yi am nañ carte wala amuñ carte wala amuñ carte ba tey. leer na nañ wane leen seen i carte wane ko avec une détermination un engagement une volonté inébranlable waaw kay tuuti la muy tuuti tuuti am na carte keneen ak keneen am na carte kon loolu li muy firndeel moom mooy c'était euh, une refonte de la classe politique mais jóg pour fajal maire Ousmane Sonko. kon yaa ngi ak la ko teg ci ñawteef ak la ñu ko teg ci bon sénégalais yi jóg ne. fomp nañu rongo ñu Ousmane Sonko ba faw wane ne lépp la mu doon wax ca février 2021 ba tey mooy dëgg. kon daal yaa ngi xamle ni. l'histoire a donné raison li ñuy rumbalaat loolee mënta nekk ay waxi ke ay waxi oh, oh, neen la oh. Diomaye Faye a été élu pour cinq ans amul ay ay ay ay ay ay ay ay candidat de transition damay dafay war a gouverner pendant ces cinq ans yi nga xamante ni moom lañ ko fal. Euh, le sain le le le le le le soutien que Ousmane Sonko a porté sur Diomaye est un soutien sincère. nee naa la 6 heures du matin nga ko doon gis muy battre campagne 14 heures nga gisaat ko mu euh, muy live di battre campagne 20 heures nga gisatu ko ci kaw kon loolu yéene la xam ni kii mooy man te maay moom dafa dem ba Ziguinchor sa base naturelle ne leen dénk naa leen sama rakk ji le a été sincère amul benn calcul amul dara bu ci kenn jéem a xalaat leen ñoom ñaar bu euh, seytaane sori bu ñu waree ànd liggéey ñoom ñaar forcément il faut que Ousmane Sonko occupé occupé occupé Euh, Bassirou Diomaye jaxaar fay président de la République du Sénégal il nomme aux emplois civils et militaires c'est son pouvoir discrétionnaire bu ko neexee léegi léegi léegi léegi mu ne Penda Badji ministre de la femme loxo dina dar gémmiñ moom eh. euh, waaye nag <laughs> nga woof mais loolu loolu loolu loolu loolu Diomaye président de la République la constitution jox prérogative yooyu noonu Ousmane Sonko maa la ko wax tey et reteniral du ko def ombre Euh, du ko encombré. ci dara déjà di effacé wu. justement saa yi Ousmane Sonko c'est un politique la gars doon gis ak lii bokkul mu soo gis ku am dayok fal maire fal député fal président de la république nga am dayo boobu te doxal ko sa bopp sul am Sonko kese. tey dégg nañ Jibril Bey wax ko fii ci suñu plateau yi. mu ne la li nga wax ni la wax. loolu la te loolu moom mooy la réalité dafa ni fàng te loolu pourtant trois années ñu ngi leen koy wax ñoom Jibril Bey mënuñ ko woon dégg lii mooy dëgg musoo gis opposition bu ñëw ne rel un coup kaw dóor premier tour musul am. mais xanaa seen nga ko quand ci benn poste pour ñu ànd liggéey. ci ban poste ngay seen ku mel ne Ousmane Sonko. bon gisuma gisuma peut-être avant septembre peut-être avant septembre mais dëgg-dëgg Diomaye démissionné Pastef Ousmane Sonko organisé waat le parti organiser waat ko bu baax euh, defaraat les instances préparer législative en septembre Ousmane son tête de liste président de l'Assemblée nationale tu auras malgré qu'il soit son ami qu'il soit son frère l'obligation de contrôler l'action du gouvernement l'évaluation des politiques publiques voter des lois euh, donc euh, voilà mais amul benn ombre bu mu koy def loolu moom c'est-à-dire wax yooyu noonu mhm. na ko gars tegaat ci suuf anaka doon wax ne amul charisme borom charisme moom nee na sondage yu ci àdduna bi yëpp joxul Pastef 35 pour cent yëpp gis nga yee eh. moom it na dem retraite moog ma ma dugal la wax dugaluma la damay wax li ma xalaat sama dëgg mu ngi noonu parce que lii la yàlla def ñoom day woy waa amul charisme sénégalais yi nee nañ ko soxlawuñu charisme kon bu dee charisme rek la soxlawuñu ko li ñu soxla mooy kuy defar réew mi jub tey jubal muy Bassirou Diomaye Faye attente yooyu la sénégalais am ci moom léegi nii dem noonu amee ay noonu la amee ay journalistes yi chroniqueurs yi war a dem retraite ñoom it. wala duñ fee wax lu safet. comme ñenn ah euh, taxaw fii naan euh, sondage yu xaw ma fan di jaay renseigné naan musul euh, Pastef du am 35 pour cent Pastef ñoo ànd fëgg 57. loolu de Yérim tamit Cheikh Yérim Seck